maam Thierno Birame Mbacke daan wax naan gëm yàlla yomb na waaye nangul yàlla dogal moo jafe. Mhm. président bu demee ba fixé date génne décret ñu imprimer bulletin yi bon jàpp na ne élection yi dina nekk le vingt cinq bu fekkoon ne jëluñu benn matuwaay. Mhm. dañ naan élection yi fas yéene nekk le vingt cinq. donc facteurs yi xam ne dafa ci dugg ak xew-xew yi ci am ñaw wax ni waruñu woon nekk candidat ñu ni waroo am double nationalité. ñu dem ba ci biir gis ne am na ko ko am te ñu validé ko am yeneen xew-xew yoo xam ni dem na ba indi lëñc-lëñc ci ni nekkoon candidat ak ñi nekk candidat loolu li gën moo ni ñu toog waxtaan parce que li am conséquence la mm-hmm. dégg nga ba tàyyi ku nekk nag opposition daal ne la sans parrainage dañ ko jaay mm-hmm. nga dégg ñu ni dafa am parrainage yoo xam ne bu njëkkee jàll sa parrainage bu jàllee tur woowee bu nekkee ci beneen liste bu jàll yi doublon mm-hmm. léegi est-ce que gis nga benn politicien bu taxaw wax lan mooy solution bi ak jéem a tuwaay noonu a jël. est loolu ça tax ñoom ñoo war a définir règle yi dañu war a wax ne bu ñu tawoon daal ne ku bind ñaari yoon. Mhm. nga parrainé A ba pare parrainé B parrainé C juróomi at doo voté. l'électeur bi def bi def loolu dañ naan la juróomi at doo voté. ñu suspendre ñu suspendre la condamné la ak sursis. bu la la la la loi prévoit des sanctions mais mënuñu ko appliquer depuis. mais xam nga xam nga lu tax euh, prévoir nañ ko te appliqué wuñ ko. Mhm. ñi mu arrangé mu ñoo bari. parce que ce qui passe en premier waaw li tubaab di wax naan juridique na na na naxaate bi tax parce que euh, damay jox exemple bu gën a gàtt rek. Mhm. Indonésie il y a plus de deux cent millions d'électeurs ñetti candidats. Sénégal ñaata ñaata population bi. 18 millions. ñu ne plus de. 20 20 candidats nga dégg ñaata parti mais est-ce que ce que mën na am autant d'idéologie non France dañ naa la droite à gauche. Mm-hmm. États-Unis républicain waaw mais Sénégal nga mës nga mën a gis téeméer yoo xam dañu ils sont de gauche nga gis ñi ñoo xam ne doo xam fu nu bokk nga gis parti yoo xam ne soo gis ñu ne assemblée générale parce que dañ dem mujj si politique bi ñu tëralee ko noo xam ni. pour nga mën a yegg ci li nga bëgg. mais da nga ne sànq euh, par rapport ak parrainage yeeg doublon yi euh, acteurs yi am na ñu mu arrangé. Hmm. mais est-ce que c'était pas de la responsabilité de l'État. Hmm. Euh, de régler tout ça def ci benn ordre boo xam ne xëy na contestation yi ëllëg du bëri parce que aussi depuis 2019 même kii la ñuy dund xëy na bi dafa empiré nag. dafa empiré xam nga État lu mën a def lépp déjà am na loo xam ne boo ko defee rek ñu ngi remettre en cause le fichier. Hmm. ñu ngi remettre en cause doublon yi. mais léegi ñi nga xam ne dañu bokk opposition ñi dañuy bokk élection baa ñu dañu yor parti politique. Mhm. li état bi war a def depuis 2019 sa def ko mais lan moo tey ba nu waxee ni waxtaan tooguñu ni léegi nag aussi lii nag matuwaay nañ ko jël ba doublon dootul amatee ka nga jàll premier ka nga jàll douzième ka nga xam ne pare na ka njëkk ki dun ko léser par rapport ki ñëw à la deuxième position mhm. mais malheureusement. maanaam le premier euh, parrain war ñu ko jël en compte ci ci topp. dana éviter doublon yi parce que parce que bu fekkee dañu dañu dafa am sanction xam nga am na sanction yu ñu wax mais appliqué wuñ ko ndax Sénégal dañ toog ba mu yàgg ñu indi masla masla googu moo topp politicien mas masla euh, sama waaw jógee daan wax na ma ci tubaab mooy hypocrisie def lu dëgg ci yow bon war na nañu mën a teg ay charte yoo xam ni ni président woo wootee waxtaan parce que lii am ni conséquence la au préalable ñu ne nanu commencé ci parrainage bi seet lan moo ci mos a yàqu lan moo tax mu am doublon lan moo tax nit ñi di mën jaay parrainage parce que effectivement am na ñuy defar ay parrainage jaay ko fukki candidat nañ waxante dëgg. wala 3 millions de parrains ku ci nekk di góorgóorlu di rivalité di rivaliser d'ardeur aussi yu mel noonu rek lay indi. kan ci APR. waaw pour cette année ils ont dit am nañu ñaata ñaata millions de parrains. waaye xam nga man loolu dama ko gëmul gis nga nag. Euh, ah, waxtaan lim bi ñu joxe gëmoo ko waaye waxtaan wax dëgg ci la am na loo xam ni. mënuñu am parrain loo xam ne président amu ko woon 2019 damaa bokkoon ci ñu ñu doon joxe parrainage. 2019 mhm. jox Amadou Ba 16143 parrainage ren parrainé wu. ndax ba ma toogee dégg ay 100000 ay 200000. waaw ku nekk di nga na euh, course. te lan noo joxe c'est pas réel parce que lanu wax ci parrain parrain buñ ko amee élection balaa midi mu jeex. Mhm. non dama la wax balaa midi mu jeex. on parle de près de 3 millions 800. waaye dama ne près de 4 millions. jekk bëri woon na ah. ànd naxante boobu moitié fichier bi. tàggoo jëwante la parce que dañ dama mujj si ñu ne ñu positionné wu dem naa am naa nangam parrainage mais dañ lay wax chiffre yoo xam ne boo ko déggee da nga ci ba dëkk nga nekk. Mhm. mais loolu ay naxee la. da da ngay jënd. Mhm. dañuy jënd parenage donc les mêmes responsables peuvent avoir les mêmes parrains. waaw wax ma les mêmes parrains sax mais dem ni la dañuy mais xam nga président mënuñu ko nax lu tax mu dem ba ca biir candidature benn bokk yaakaar. jaar ko ci parrainage bi. yi la jël les waaw parce que kenn mënu ko. wóolu am na loo xam ne kenn xam nga xam nga li xew. Mhm. et malheureusement loolu mooy catu Sénégal li ma la wax ni la dafa am loo xam ne dañ ko banaliser mooy ñàkk wax dëgg bi mhm. te ñàkk wax dëgg googu moo na indil coono bu ne.